أبو رجال لا إله إلا الله لا إله إلا الله سورفا لا لا إله إلا الله laa ilaaha illallah aboo rijaal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah suurfaal laa laa ilaaha illallah la ilaha illallah allahu la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha abu rijal la ilaha illallah la ilaha illallah surufa la la ilaha illallah la ilaha illallah allah la ilaha la ilaha la ilaha illallah la lamb faal baabul muridiin laa ilaaha illallah suuru faal laa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha laa ilaha illallah laa ilaha illallah allahu laa ilaha laa ilaha laa ilaha illallah laa ilaha illallah. auzu billahi mina shaytaani rajim inni unsu bika wa dhurriyyataha min shaytaani rajim rabbi unsu bika min hamazaati shayaatiin wa unsu bika rabbi an yahdurun bismillahi rahmaani rahim barkeb Sëriñ Bamba barkeb Maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen balwaax di leen balwaax di wax ne nag ndaje mii ñu daje fii tey euh, jubluwuñ ci lan lu dul waxtaan ak bokki taalibe yi ci bis bi nga xamante ni mi ngi jëm ci suñu kanam di bisub texe di bisub ngëneel boo xam ne ah ñaari ñi ko séq di benn ndax suñu Saliou da doon wax naan ñaari jëmm yoo xam ne doon benn waaw ndax ku tedd ki dafa wax digganteem ak boromam wax dal di ne dana li allahu alallaahi bilaa daal ni waat dalal ni yàllaahu ala muhammadin waxaade ni muhammadin samadi ah kon wax na carte d'identité am digganteem ak boromam ci teewlu ak càkkutéef goo xam ne nii bawawul fi fenn lu dul borom bi ngir xamal ko ci boppam ngir xamal ko it ci yonante bi waaw waaye nag ba nga xamante ne nii xamal na ko kooki ba la leen moom it daf ko newaat cas delloowaat ko borom bi maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne nii nag moo waral bis bii di ñaar fukki fan ci weeru koor bi ak njëbalam moom it dafa wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe waaye nga xool yoon wa mbir ma jaar fan la jaar mooy dafa am lu waral loolu li waral loolu moo di dafa am lu xewoon ca sunu maam aadama digganteem ak Hawa waaye ci dogalu borom bi am doomub garab bu mu lekk ca àjjana tax ñu sos àdduna doomu garab boobu tax ñu sos àdduna ñëwuk sëriñ bi la nga xam ne nii moom mooy ci ay lore ci aju ci doomu aadama yi te sallallahu alayhi wa wax ne moom kat keroog ba muy génn àdduna la mu wax borom bi mooy man de lii nga may wax ne lan laa bëgg mooy sama xeet yu mucc xeet woow yi nag li leen fi indi dara indiwu ko du dul doomu garab boobee looloo tax bi nga xamante ni nii ku tedd ki mi ngi koy seeti sëñ Adama Guèye la yabal waaye nag am na lu mu def mooy dafa bindub leetar dafa yor lu ñuy wax njoor loo xam ne nii ñam ko jox ñoom xamuñu ko waaye kay dajeeg ñoom di maam Cheikh Ibrahima Fall moom xam na ne looluy mission bi ndax xam na ne loolu la war a jël delloowaat ko ca garab ga ngir jaami yàlla yépp mucc yàlla def bi mu dajeek moom ah, nga xamante ni ñoom ñaar seen waxtaan ah fexe na ci naxtaan ak ñoom ba jot ca leetar ba ba jot ca doomu garab ba waaye garab googee nga xam ne ni moom moo newoon nag ca àjjana ba waral loolu mooy liggéey bi mu njëkk a liggéeyal Serigne Touba daal di yéeg ca garab ga delloo doom ba daal di ne addiyee yi fi ma jëm te àggaguma ci moom mooy li doonoon yitteem lu delloo doom ba ca garab ga kon keroog bis boobu di fukki fan ak juróom-ñaar te boo demee ci histoire li nga xam ne nii mooy xeex bii nga xam ne nii mooy Badar ca bis boobee ca la daal di dakk di fukki fan ak juróom-ñaar bisub laylatul xadar bi njëkkit sallallahu alayhi wa sallam def ko ci fukki fan ak juróom-ñaar la ko tàmbalee kon ñu xam li nga xam ne nii moom moo di ñaar ñii bis boo bii nag bi mu ko gisee ci fukki fan yi ak juróom euh, ci ak juróom-ñaar dem ca kër ga am fa fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ba ca ñaar fukkeel ba nag ca la gis nag ca Mbàkke Kajoor gise boobu nag ci Mbàkke Kajoor kii xam na ne kër gi am na gan kii it xam na ne moom gis na ki mu doon seet ndax la mu wax ñee mooy euh, ki nga xam ne moo di euh, góor kat su ko sunu borom boolee ak soxna bu ca jëlee dara ku ko gis dana xam ne kii jël na ci moom dara kon yéen ñii fa ngeen jógee foofee dara ndax daray kooke mu ngi ci yéen mooy ki may seet ndax jigéen ju ëmb moom ku dajeek moom da nga xam ne kii ëmb loolee nag leeruk sunu borom googee nekk ci jóge ci Sëriñ Tuubaa ci ñoom bañ dajeeg ñoom xamal na leen ne moom li muy seet euh, ki muy seet leeru kooke moo na ci ñoom waaw kon bi nga xamante ni sunu borom def na mu agsi it ca euh, Mbàkke Kajoor foofee nag fa la daal di tegee nag ay bëti wóomam daal di jaayante waaw kenn ku ne xam na ne lislaam jaayante rek moo koy taxawal mooy kenn ku ne xam na ne Ababacar bi mu dikkee ci ku tedd ki sallallahu alayhi wa makk gépp moo ci ëppoon àll waaye kenn sutu ko woon nit ci xam-xam waaye keroog ba mu ñëwee dafa daal di jël alal ja jël boppam ak léppam daal di jox sallallahu alayhi wa topp ci gannaawam ne ko loo wax du def tey doonu fekk ci lu ñu tere ku tedd kii bi nga xamante ni ñëw ci moom lu foofii rek la daal di saxal mooy la aaya ba wax ne lanta lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna moom la daal di indi nit du am li mu gën a bëgg ndare du dafa joxe mu gën a bëgg waaw jëmm ji nag lépp looy wut ci àdduna sa jëmm tax mu daal di jël jëmm ji jiital ca ndax doom yi cay juddoo ak alal ji ak léppam mu ne lépp jëbal na sëñ Tuubaa waaw ba mu ba mu jëbalee boppam sëñ Tuubaa ak léegi ku nekk dem nga sañ ci ab dëkk ne waaye mel nu moom moo des tey jii ku tudd sëñ Tuubaa maam Cheikh Rafal nga ci teg dox nañ ci loolu ci Pastef bu wér boobu dem naa dema dem a dem ba tey jii Touba ñu wëlbati ko tegaat ko ci loxoy maam Cheikh Ibrahima Fall ak njabootam nekk fa di ko saytu loolu wéral rek ma koy indi kon nag euh, bis bii nga xam ne nii dañ koy def tey muy mu ne aju ci weeru koor ku tedd kii dafa toog ci njaareem mu ne moom dafa am gan mag ñi ñëpp dégg na ah waaw moom gan nga war a ñëw maam Sara Fall moom daa daal di laajte ne lu mu ñu ne ah nee dafay am gan mu ne waaw waaw bismillah daal di dem soqalu daal di dajalee dugub yeeg yëpp ñu daal di tàmbalee defar daal di seeti ay gàtt yu ñu ko mën a booleel ba nga xamante ne nit kii nag mu daal di koy defar ba mu jekk ñëw ne ko ndogu yàngoo daal di ne weeru koor lay wax waaw ba mu ko waxee loolu rek weer wa da am dafa daal di gontu feeñ léegi nag ñu xam ne kii mooy ki nga xam ne moo xam li ne ci waa ji ci lim bëgg saa bu ko rek moom mii mooy ki nga xam ne moom moo ci ne waaw àgg naag nu nit ci murit murit Ibra Fall waaw kon nag ñaar fukki fan ci weeru koor muy bis boobu yi nga xam ne nii ah, nee nañu ci la yëf ya wóor te muy li nga xamante ne mooy li am mooy eh, bis ba mu fa ñëwee dimanche ca la jébbalu bis bii it dëppoo ak dimanche kon dañu la la wolof yi di wax te jële ko ca séeréer daal la woon gara kon loolee moo dellusi waaye nag sunu boroom borom dimbalinu ci baaxu Serigne Cheikh Fall Khady Gueye ci ànd gi nga xamante di doomi sëñ Modou Moussa Fall mi nga xamante ne nii moom moo topp Serigne Falilou Fall mi nga xamante ne nii moo demoon ca guerre ba kooku gannaawam moom mooy xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall bi njëkk kookii moom moo meññi sëñ Cheikh Fall Khady ànd ak magam ju tedd ja sëriñ Modou Aminata Fall ñu ànd doon benn di liggéeyal sëriñ bi di liggéeyal sëriñ bi di liggéeyal sëriñ bi ba sëriñ Modou Aminta xëy di xalifa sëriñ Abdoulaye nekk fi kon loole ñoom tàmbale nañu liggéey bi ci sëñ Modou Moussa ànd ko seen mag ju tedd ja sëñ Cheikh Fall Baab Góor ba ni fi sëñ euh, Modou Moustapha jógee sëñ Fallou ne fi ñu wéyal seenu liggéey ànd ci seen liggéey boobu ba sëñ Abdoulaye Mbacke euh, ne fi danga ñu ñu ñu ñu ñu ñu nekk fi di wéyal seenu liggéey ba xëy doon xalifab sëriñ bi nekkal fi maam Cheikh Ibrahima Fall ànd ba sëriñ Saliou ñëw fi ànd ak ñoom ñu gor 1991 ñu tàmbali liggéey ba ñu ànd ko ak ñoom ne ca biir liggéey ba ba ca xel koom njooju ci ci ndigal la wàccee liggéey ndigal joojee nag laataa loolu fekk na moom mu taal di tàmbali bis bii di ñaar fukki fan ci weeru koor mu jël ko indi ko fii ci Kaolack waxtaanee ko ak mag ñi bi mu ko àndee it ak mag ñi ah, di ko doxal di ko doxal di ko doxal ba sunu borom def ca la ko soob mu gërëm mag ñi sant leen bàyyi fi doomam ji nga xamante ni ni tey moom mooy xalifaam di Serigne Fallilou Fall Cheikh ànd kook rakkam yu tedd ji yi nga xam ne ni ñoom ñoo fi ne ki nga xam ne moom mooy seen jëwri nit moom mooy sëriñ sawaa Fall ñu naan ko sëriñ Moustapha Fall takk der kenn xamu ko ci lenn lu dul liggéeyal sëriñ bi mu ànd kook rakk yi ñoom ñëpp ñu ànd doon benn xam ne kër gi kat lenn nekku fi lu dul ndigal kenn jiitu ñëpp topp ci gannaawam su waxee ñëpp def tey jii loolu moom moo indi seenu takkatoo doon benn kër gaa ngee ñu defar ko ba mu ne boy tey jii fa fa la ñuy màggalee màggal gi di sañ sëñ Mor ñëloor gi naam kon nag bis boobu ci la ñuy woo ñëpp ni ki dimanche jii di ñëw dëppook 31 ci weeru mars bii nga xam ne ci la ñu ne di ñaar fukki fan ci weeru koor boobu bis moo tax tey jii ñu daje fi ci ndigalal jëmm ji nga xamante ni moo fi yore baatu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu koy wax sëñ Mor Talla Wade waaye nag sëriñ bi moom bi nga xamante ni nii loolu yi am na kenn nekku kenn nekku fi te nekkal ko fi ku ci ku koo xamante ni jiituwu ci muy muy muy muy sëñ Babacar Mbacke mu kabaro ak mboole seen ëhlu Mbacke ndax mooy ki nga xam ne moom moo jël Mbacke jëndee ko paaleen takk laxasaay doon koo xam ne nii gaynde la bërki démb rek la fi jógee dem fekki sangam mu tedd ma di ko yóbbul euh, li nga xam ne nii moom mooy ndogu yi te lan lañ ca wax mooy toog na ak sëriñ bi nekk ak moom ca daara ja di xool ni xéwal yi di doxe weeru koor wi ñëw mu daldi ne ah déet moom na daal di tàmbali di def ay xéwal génn dem wut yi ba mu dikkee tàmbalee ko ci genn ganaar ba weeru koor wi ñëw mu tàmbalee ko ca ñetti ganaar di wéy ci loolu di ci wéy di ci wéy ba tey jii muy jiital ay xar di jiital ay coggal ay ganaar bay defar ànd bu ànd ak cuuraay ak parfum dikk bu dikkee jébbal ko daal di ne nun kat euh, dikkuñu rek sëy si waaye danoo sëy si waaw kon nag doxin woowu day doxin woo xam ne wu ñëpp mat a xam woo xam ne ñëpp dañ koo war a roy diggante sëriñ Babacar Mbacké ak way juróom wu tedd yi nga xam ne dafa jaay njural gi jënde ko ak taalibe muy sëriñ Mountakha Mbacké waaw moom mooy léppam saa yaram ma bàtti na waaw ci tënk li nga xam ne loolu la ñu koy doxalee mooy sëriñ bi dafay ñëw fii ànd ak bokk yi xalifaam di sëriñ Falilou Fall moom sëriñ Modou Aminata Fall mu ànd ak ay rakkam ah ñi nga xam ne nooy xalifa général murid yi di Cheikh Mouhamadoul montaxa dana fi yónnee ndaw yoo xam ne ñoom ñoo fi ñëw ki nga xam ne nii moom mooy am di sëriñ am di Modou Mbenda Fall di xalifa maam Cheikh Ibrahima dana fi yónnee it ay ndaw dana ñuy def bis bi nga xam ne nii mooy jiitu bis bi muy de tey jii muy dëppook samedi danañ jàpp kenn ci mag mi koo xam ne nii bis boobu moom la ñu koy dara jaalee bu ko defee nag bu ñu àggee ba ca bis ba day am cérémonie officielle gouverneur monsieur le maire ak préfet ak ñi nga xamante ne ñooy autorités yi dëkk bi ak kilifay yi diine yi ñu daal di daje ca cérémonie officielle ba daal di def xéewal wëlbatiku nag ñëw toog ca baas ba waxtaan ak askan wi waxtaan ak mbooloo mi leeralal leen ba déwén ak jàmm ñu daal di dellu siwaat ci biir liggéey bi loolu moom war a am dimanche incha allahu rabbi ci njiital sëriñ Falilou Fall Cheikh mu ci woo góor ak jigéen mag ak ndaw di ci woo képp bàyyiwul benn këru diine ñépp lay woo ñëpp ñëpp ñëpp rawatina nag ñi nga xam ne nii ñooy suñu bokk di ëllu ña seen ndax buñ demee ba naan lislaam euh, fii naan àngal lislaam kon am na lu jiitu woon loolu mooy fii ci ñooro euh, woote ba ba nu wootee ca ñooro it gis nga ko mag ñëpp fa la daje te lislaam saxaloo leen waaw ñu mën cee tudd ka woote woon di Maba Jaxu mën cee tudd maam Abdoulaye mën caa tudd sëñ Mor euh, sëñ maam moor Anta Sali mën caa tudd mën caa tudd mën caa tudd muy mag ñooñu ba sëñ Bamba bi muy ñëw ci jotaay ba bu ca daara ja la jóge ndax lislaam la ñu wooteel mu toll ci tout tànk waaye lislaam ja ko ñor dafa daal di ñëw am na ca ay garab yoo xam ne nii ñi ngi foofu kiyal na ko yettal na ko boppam defar def fa di bind ay xasida ngir tagg yàlla yàlla boromam waaw akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam kon boo bii bis day bis boo xam ne bis bu am njëriñ bàyyiwunu kaneen bàyyiwunu kane suñ mbokk yi sant ka ak ña lew na bàyyiwuñu fenn ñépp la ñuy woo ak képp koo xam ne daal nee nga ashadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñoo ngi lay woo ci bis bi